maa ngi maa ngi sant ñëpp. maa ngi sant maa ngi sant maa ngi sant ñëpp. maa ngi maa ngi ziar ñëpp di rafetlu ñëw bi ma ñëw fii euh, di di sant bu baax di sant bu baax son excellence monsieur le premier ministre. Sidiki Kaba di sante madame Kaba bu baakha baakha baax bu fekke ne wuma ci Tamba yaakaar naane sans risque de me tromper mën na ma wax ne ñi taxaw fi ño tax parce que ki wax na ko léegi dañoo bokk cheikhul xadim wëlbatiku bokk daaru xuddos wëlbatiku bokk ci kër coon la bokk te mënuñu ko séddoo muy cheikhul xadim rawatina daaru xuddos bi mu njëkkee ñëw seet si ma jukkik nooru daare la def addiya indil ma jox ma sijaada bis bu nek mu defi diego yodi ay nitam ñu ñew indil ma luma xewlu monsieur le premier ministre depuis dama koy wax ni que li may indil xam nga ne du pour man parce que ay boli lek du pour man ay kees fruits chaque jour du pour man mais bobu ma ngay xalat ñeneen ñima nekkal demb rek mo ci muju ben détenu néna ma mais président bo démé li mom li nga ñu tamal nu ñuy def mané ne ko ñaanal leen ki indi xéewal yi ak furwi c'est son excellence Sidiki Kaba kon suma génné euh fi ma suñu borom téggé won natt bo luma def ludul, ñew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 mu tok ci place avocat pour ñu jox ko ne ko avocat en référence ci euh, article yu malheureusement c'est parce que jaar-jaaram ak expérience am ak njariñam ci liggéey bi nga def droit de l'homme waral ñi

sasoo nangu nañu ko sasoo na fekk rek mu nekk njëriñu réew mi jërëjëf. merci beaucoup merci jaajëm jëf. jërëjëf gala diaspora bi asalaamaaleykum. Serigne Omar Fall. waaw Serigne Omar Fall di ku yàlla baaxal. mu géeju lool ci wàllu asraar ak ñaan. moo xam kuruus ba ci wàllu bind. di joxe ay sangat yu yéeme lool moom Serigne Omar Fall. yéen bëgg sixaara jokkool ak Serigne Omar Fall. bëgg cangat ci wàllu ubbeeku ak muslaay ba ci protection bayri ak cat ba ci yéeme am faru jigéen bu bëgg borom kër mu jafe ko lool ba ci góor gi bëgg soxna mu te ko lool gaaw leen seeti Serigne Omar ba ci ki bëgg tukki am jafe-jafe ba ci yéeme li jëm wàllum këyit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 jokkoo ak moom génn ci xat-xat yi ngeen ne ak seeni njàqare seeti leen ko gaaw nattal seen dundoo téléphone am di 78 566 35 79 ma bamtuwaat numéro Serigne Omar Fall 78 566 35 79 ak Serigne Omar Fall seeni jaaxle na seeti leen ko gaaw cëngët ci wàllu ubbeeku mus la it protection bay cat ba ci yow mi am faru rab jigéen bu bëgg borom kër mu jafe gaawal seeti Serigne Omar Fall góor bu bëgg soxna tiful làmb mu dëgër gaawal seeti Serigne Omar Fall ba ci ki mu jafe ko wàllum kayit jafe la lool ba ci wut liggéey te fu mu jug lu ñu ne ko du fii seetil Serigne Omar Fall tawat bu la jaaxal yow mi bëgg ku la dugal xalwa gàllaaj ndongo ba ci jaaroo ci Serigne Omar lam ci yor doo ko gis fenn ma bamtu ko numéro mooy 78 566 35 79 Serigne Omar